waaw profil jàngkat yi moom dafa bokk ci thèmes yi ndax boo ko wax naa ko léegi six thématique la sixième mooy euh, profil des enseignants coraniques au Sénégal quelle qualification et compétence loolu luñ soxla jamono bu ñu toll ndax rey gi ñu dégg fan yee dégg côté Linguère loolu bu fekkoon ne sëriñ daara bi ci jëm boppam am na formation dëgg-dëgg am compétence bi dëgg-dëgg-dëgg xëy na ñoo xam ne ay dongaam ñoo ko dóor wala xeet dema noonu boobaa dana xam ne ay doomu la yor dëgg-dëgg yoo xam ne yàlla daa teral doomu boobaa dana ji ci ñiy jàngale ak moom xam ne kenn wërta xoqatal doomu aadama kenn wër ko dóor li ñu jàpp ne actuellement nii kuy jàng alxuraan kat dañ laa a duma déedéet gis na danaa jox benn exemple bu leer boo xam ne ñi ma ko wax ñi jaar ci daara Sëñ a ko yàlla doon leer xelkom daar taali bi ñoo fa nekkoon waaye benn bis daa xëy su ñëw ci daara na leen sama daara ji ku fi dóor xale bëggatuma ko koo xam ne dem nga ba ñoo ñàkk bañ a bàyyi njàngale mi te nga dellu te nga dellu sa kër bàyyi lii la leen wax ku dem ba mënoo a dóor bul ma sama njàngal bàyyi ma sama xale dem wax nañ ne ba mu ko defee am na ñoo xam ne sëriñ daara yu xawoon na saf loxo lañ waaye dañoo mujj na ah, man de am na koo xam ne ko wax sax bu la ñoree ñor ma de daal nga xam ne dóoree dañ ko faa jëlee complètement kon niñ bëgg a jàppade gëm lu nit ñi ne dañoo war a dóor xale pour mu jàng déedéet damu non de ndax yàlla ko am yërmaande yonent sansen ku am yërmaande la donc kon jàpp nañ ne buñ leen defalee ay formation yu leer nañ ñi gën leen wax ne nii ngeen war a jàng nii ngeen war a mel jàpp nañ kon baba jafe-jafe yi am gis ngeen ba euh, li xaw ko yi wakaam gi dégg ngeen ko ay pédophile yoo xam a yeesu billahi wax naa leen loolu ñi ko def dañ leen war a enquête jàpp leen ndax dañuy tilimal daara dañ ko tilimal ndax l'islam xamul xamul xamul xamul xamul euh, kii de faralaat faralaat gi déedéet bu fekkee yaa ngi dugg ci biir l'islam da nga jàng l'islam kooku ñun ñëpp waroon jug taxaw condamné ko ndax loolu garaaw garaaw lu dansé la ndax jàngal ay xale di leen tëddee wala yasubillahi taala loolu gën a yàqu deru daara la loolu doon tax ñiy xeex daara man faa jaare loolu nag ñun ñoo war a balaa état bi jug wala kenn jug ñoo war a wax état ne ko kii na ko condamné na ko téye bu ñu jógee nag ñun waxtaanal suñu biir moo tax ñuy waajal forum bi nga xam ne qualification yeeg compétence yëpp incha des na ko waxtaane ba nga xam bu ñu fi jógee bu soob yàlla nit du jógate rek xëy suba di jàngal daara ak nu loo neex